wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci xalif général kulu murid Cheikh Mamadul Muntaxa noo ngi ñaan mu yàgg lool te wér gis ngeen nag rakkam ju tedd ji dend ak nun di alaaji sëriñ tàkko mbàkke moom Cheikh Mat Fadal Mbàkke ak sëriñ Abibu mu Cheikh fa Cheikh Cheikh Mout Fadal Bakke ak Cheikh Abdoulaat moom sëriñ Abibu ak waa Touba ca kanam yépp Touba ca kanam bi nekk Italie yépp ngi nii waaye la le 24 décembre nag ñoo ngi jëm France Mbakke yàlla nañ ca yegg ak jàmm ku ñuy fekki France mooy soxna Ami Njaay mii bàyyi faalu maam jaara soxna mi yàlla njaay mii jiite daayira subulatu salaam waaye nag xam ni Touba ca kanam ñëpp a ci war a bokk liggéeyal ko sëriñ Touba mu woote ko le 24 décembre ca France moo yëgal koy jigéeni France yëpp ña nekk ca daayira maam jaara yàgg yëpp ak ña nekk ci café diaspora bi kenn desul ñëpp ko bokk liggéeyal Serigne Touba la soxna mi njaay woote na ko ànd na ko ñoom. amul xejj amul seel ñépp la ko bokkal tàllal na loxo it jigéen ñépp na ñépp ñëw tàllal na loxo Touba ca kanam na ñépp ñëw France góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn waaye xam nga ne soxna Baali Mbakke moom mu Cheikh mun Muntaxa jàmbaari maam jaara ñu tudde ko ko ren da ko jox ci bis bi cër bu mag moom dana ñëw ànd ak waa Touba yépp soxna muslim Mbakke moom sëñ Mour Moussa Falilou sa mag ja daayira bi mu yore di jàmbaar lool di liggéeyal sëriñ Touba ak jigéen ñi mu ko bokkal ñépp Ami Ndiaye bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn woona ñëpp képp ku yaakaar sëriñ Bamba bëgg a liggéeyal tuubaa ca kanam tàllal na la loxo Touba ca kanam nag ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem kon bu feeñee mu takk ndiggam wala batiku war a teeru sëñ bi war a liggéeyal tubaa ca kanam ñëpp ca war a jàpp tubaa ca kanam Ami Ndiaye moomu ko kenn moomu ko Serigne Touba moo moom. kon na ci ñëpp feeñ ci lu baax di ko yëgal taalibe yi ca Ndakaaru yépp tubaarkàlla Fatou Géwal xaritama di taalibe sëñ Bamba mu woo ko ci moom it mu war a ñëw ci liggéeyal sëñ Touba lépp lépp yem ci Touba ca kanam te te Touba ca kanam calay lay tàmbalee Touba ca kanam ca lay yem bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn. ñu ngi ko yëgal ñëpp Serigne Gueye ku ne xam ko Touba ca kanam. moom it dana ñëw ànd ko ak seen lebu sekk ak ñu ko bokkal ñëpp fekk si waa itali ak li nekk ci Europe yëpp ñu daje France le 24 décembre liggéeyal ci Serigne Touba ci Touba ca kanam ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu le 24 bu kenn manqué. man Amy Yalla Baye Fallou Maam Jaara Paris maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. di jiital ci nuyoo beeg ziar bi suñ xalif général sëñ Mountakha Bassirou Mbacké may ñëw nag ci appel bi def fii léegi bi nga xam ne liggéeyub sëñ Touba bu mu nangu di café diaspora bi ñuy organiser Paris 24 décembre ñu ànd koog waa Touba ca kanam nuuru daaree ni di ci woon ak ñëpp ànd koog waa daayira salaam soxna Fat Ndiaye soxna Ndey Mari Jaw Mante la Jolie soxna nday Fall soxna Xadi Mbaw ak soxna Alima Doucouré ca Marseille ànd ko itam ak suñ coordinateur u Paris sëñ Xaadim Badiane ak suñ coordinateur France sëñ Mouride Ndaw ak soxna Fat Thiam soxna Xuri Ngom soxna Caara Mbóoj jàmbaari sëñ tuubaa yooyu nga xam ne ñoo bokk liggéey ba ca France ñoo ànd bëgg a liggéeyal Xaadim Rasool ci vingt décembre de bu exceptionnel ci biir ci biir Paris nga xam ne bu seen pexe juboon tey tubaab yi tey kenn du wax sëñ Touba waan tey Bamba fépp